Oh, mais retraite moom. Euh, ci corps yëpp war nañu xoolaat parce que mais tey par exemple xoola suñu métier bi di journaliste mais di nga ci gis ku am soixante cinq ans mais qui est actif encore. Ah, ouais. mais dans va dans dans les dans les télévisions étrangères à travers le mais da ngay gis du ñu mel ni ñun sama genre yi <laughs> da ngay gis un chroniqueur judiciaire boo xamee ni. avant muy nekk journaliste chroniqueur mais fekk na ba ancien magistrat lay doon wala ancien nangam maanaam liggéey na beneen liggéey ba noppi nga ñëw ñu jël la ci benn rédaction pour nga yore lépp lu jëm ci wàllu par exemple euh, judiciaire boobu ñuy waxtaanee depuis tout à l'heure nga xamee ni wax sa xalaat lay mujjee doon euh, demal ci yenn ci ay euh, rédaction par rapport ak âge bi ngay wax retraite Euh, ci bitim réew wala ci yenn këru liggéeykaay yu mag yi nga jël France 24 nga jël euh, BBC euh, nga jël CNN nga jël yeneen i chaîne de télévision à l'étranger États-Unis comme en Europe ak feneen mais da nga gis ñoo xam ne ni seen spécialisation par exemple mooy lu jëm ci wàllu armée lu jëm ci wàllu guerre mais ñooñu di nga gis ko am soixante et quelques années ñu koy doog recruter ci biir benn rédaction parce que loolu mooy domaine am nekkoon na ci ancien militaire wala nekkoon na koo xamee ni xam na ci dara ba nga xamee ni ñoom bu ñuy def euh, yenn ci ñuy def nii dans toutes nos chaînes de télévision locales euh, ci ay chroniques ak euh, yenn ci ay points mais da ngay gis koo xamee ni dañ lay woo uniquement pour tel sujet malheureusement euh, on n'a peut-être pas le personnel qu'il faut ba pare tey on a envoyé nos papas à la retraite un peu trop tôt tey par exemple j'aurais vu euh, un un journaliste euh, bu nekkoon ci ay jamono pendant euh, nangi met ci benn télévision peut-être nationale RTS wala yooyu mais mu am benn spécialisation ci lu jëm ci wàllu culture par exemple mais chaîne de télévision yi di ko xëccoo peut-être à 65 ans pour euh, ne ko mais écoute dañ la soxla parce que euh, c'est vrai retraité nga ci loi bi lu mu bind mais soxla nañ la ba léegi parce que bëgg nañu ci lu jëm par exemple ci aspect culture ñu mën a am ku ñu mën a yore ça doit être valable pour les magistrats ou pour ñu ñuy wooyee euh, le secteur de la justice mais dafa war a am benn euh, équilibre je prends le cas des notaires par exemple fii dafa am ñett notaire ñeent ñoo xam ne mooy ñu siiw ñi ñu ngi fi depuis Mathusalem ñu ne la mais ba ci concours pour nekk notaire dañu ko ajoon ajoon nañ ko depuis presque 2009 ba ay 2013 lañ koy doog a tàmbaliwaat et c'était sous le ministre euh, de la justice euh, Malick Sall su ma jumul euh, ñu toog lu yàgg ñu ne la sax ba ca concours ba sax am na ay jafe-jafe parce que ñu ngi naan diw jàll nag diw jàllul mu am ay mbir yoo xam ne dañ ci combien de de jeunes ñoo génn pour dem defi concours notaire boobu pour doon notaire. ñu ne la tuuti lañ ciy jël am nay jamono on a pris vingt et un ñoo xam ne dañ leen jël pour ñun euh, nekk ci notaire te pourtant notaire dafa dafa important ci arsenal juridique ak judiciaire bi ñu am judi juridique judiciaire c'est pas seulement mbirum magistrat bi ah juge bi euh, président cour d'appel président nangam juge d'instruction euh, wala procureur non parce que procureur dañ na am procureur procureur mais tribunal bu nekk am na procureur daam benn procureur bu ëmb procureur yëpp mais foo dem am na benn procureur bu fane ba ci biir lu ñu woowee cour suprême nga gis ñu ne la chambre administrative ak yeneen ak yeneen ku ci nekk am na ñu fa teg mais comment faire ba mu am équilibre boo xamee ni on permettra à beaucoup plus de jeunes yuy doog génn école ñu mën a embrasser ce métier mën a insérer wu sur le plan socio-professionnel ci mbirum justice de manière générale mais loolu c'est à l'État également je pense que ça a été discuté dans dans les de prendre également euh, ses responsabilités pour permettre justement ñu mën a am benn relève bu gën parce que tamit euh, mais quand je prends man su ma xoolee maître Bamba Cissé dama koy jël souvent en exemple parce que ba may xam maître Bamba Cissé euh, ma nga siiwee ci procès Cheikh Diop et compagnie bokkul ak Cheikh Diop bi la ci lakkum bourse du travail euh, boobu mais on, on entendait les plaidoiries plaidoiries de euh, Bamba Cissé dend ak ku ci mel ni ABC euh, Alioune Badara Cissé euh, avocat euh, ay maître El Hadji Diouf ñu ngi foon ak yeneen i sommité ci wàllug euh, yoon mais Bamba Cissé c'était ci yooyu la jamono le plus jeune des des avocats mais ñu jël dossier bu toll ni dossier boobu lakkum bourse du travail nga xamee ni nit sax faatu na ci mu indi woon coow lu ne lu ne lu ne cour ci réewum Sénégal mu bokk ci avocat yi nga xamee ni ñu ngi woon ci tribunal ba jour délibéré bi daanaka à trois heures du matin la ñu pare euh, pour euh, xam verdict bi mais ñooñu dañ leen mayoon chance ñu mën a teel a wane wu aujourd'hui il y a pas mal d'avocats jeunes yoo nga xamee ni boo demee tribunal fekk leen fa mais est-ce que ñu ngi leen jox yenn dossiers yu mag yi cabinet d'avocats yi ñoom daanaka bu ñu leen di jël ay stagiaires lañ leen di jël nga nekk fa ay diir gudd avant mais dossier bu am important sax duñ la ko jox xam nuñ ñu lay jox euh, kii daa sàcc ginaar waaye euh, bañ ko jàppee ak nangam ak nangam alors que c'est vrai di nga jàng mais war nañ leen gën a dooleel ba nga xamee ni dañ leen di promouvoir ci avocat notaire greffier Euh, daanaka travailleurs yi nekk ci wàllu justice yëpp huissiers yeeg ñëpp ñu fexe ba jeunesse boobu ñu gën leen jox doole parce que bon euh, les vieux ils sont vieux hein. Euh, nga ci am ñaar wala ñett ñoo xam ne reste en tant que conseil pour mën a poursuivre mais il n'empêche que il faut que mu am benn rajeunissement un peu de euh, de notre justice et bon presque de tous les corps aussi. effectivement aussi Rewmi Quotidien wax na ci par rapport ak ICS mi nga xam.